fàttali leen ni tey la ajjuma yem ak fukki fan ak juróom ci diggi tabaski atum ju nekk ñeenti rek ñeent fukk juróom ci gàddaay gi li yëglekaay yi xëyee niki tey ji nañu ànd yërëndoo ko dóor ko yéenekaay bi di Sud Quotidien njëkk bi taxaw ci njàmbat li nga xam ko amee jëmale ko ci yoonu Sénégal ak nii muy doxee ñu bare bare dañuy làq doom di dóor doom Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi muy wut réewum Sénégal bokk na ci la mu xamle woon moo di bis bu ko yàlla dénkee réew mi def kéemtalaay kattan ba joyantiwaat yoonu Sénégal ngir mu teguwaat ci aw aw yoon askanu Sénégal gépp maase gis ci seen bopp dafa benn nag loolee ñu diggee woon taxaw nañ temm ngir jëfe ko la waral yéenekaay ñu woote ko ku nekk ci askanu Sénégal njàmbat loo amee jëmale jubbanti ngir njàmbat la nga nga mën ko faa bind su defee ñu mën gis mën a bokk ca waxtaan boobu le traité euh, lañ ko jàpp di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai moom lañ fas yéene amal boobu le waxtaan jëmale ko ci yoonu Sénégal ak ni muy a joyante ba tey bari nopp yéegle ba mu gën a méngoog bëgg amal na ko ngir ko ci yoonu Sénégal ak

Euh, soble si waaye nag yéen a kaab lam ñu xamal moo di dafa mel ni ñoom ñaar ñooñe seeni i dafa tàmbalee yokk xaat nag tabaski yaakaar naa fan yu néew moo ci des noon la ko yéenekaay bi xamle ba la ñu xamal bi euh, xam ne ba tey yéenekaay bi la ko yéenekaay a andi ay leeral di l'observateur ba tey mu taxaw moo di lii ñuy wax daw dawaan dawaan moo di courant lañ ci wax woyefal ngir indi woon ko ngir bëgg a teggil askanu Sénégal lu jëm ci wàllum coono nag dafa mel ni woyefal boobee moo mujj dis gën ci ndoddu askanu Sénégal yéenekaay ko xamal la ko waral moo di woyefal bi jamono ji lu bari ci askanu Sénégal ña ngi koy jàmbat ndax njëggee na muy yokkoo nga amaat boo dugalee mu nekk mbir yoo xam ne a a ay lanceur d'alerte maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee ay lanceur d' insulte maanaam ñi nga xam ne ay saagakat la nag yeneen yu ko nuru ñoom ñaar nag yéenekaay bi dikk na ci di taf ca ab taxaw seetlu kenn ku nekk ma ngi cay indi ay leeral ba tey yéenekaay bi dikk ak ñun dañoo xam ne Birahim Seck moom itam yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci IGE bokk ci kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu jagle lu jëm ci saytu doxalinu moomeelu askan wi maanaam ñi nga xam ne ñoom ne dénk moomeelu askan wi naka lañ koy doxalee IGE bokk na ci ñi nga xam ne ñoo war a saytu loolee yéenekaay bi nag lam ñoo xamal moo di ku ci mel ni OFNAC naka itam Cour des comptes seeni rapport génn na ngir xaw ana naka lañ doon saytoo doxalinu moomeelu askan wi yéenekaay bi nag lam ñoo xamal moo di Birahim Seck la bëgg moo di IGE moom itam na dafay jéego rapport yi mu yor na ko génnee teg ko ci penc bi ñëpp xam ci dëgg-dëgg lan moo nekk ca biir beneen yëglekaay yi ak la mu xam le ni ki lam ñu ji nekkatul ci réewum xam si ne moo di France ak tamit Maroc di ko fàttali ni ko wax dëgg yàlla jot na sëkkal nga génnee sa loxo ci politique beeg ni muy doxee daal di koy delloo ci àndam noonu ne ko yéenekaay bi di Walf Quotidien daal ñu koy xamalee Faye yéenekaay bi di kat ñu dañu xam ne dafa mel ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye taxawaay e e la ko waral moo di war naa dem foofule ca Conakry la ko yéenekaay bi xamle baneenub yéeglekaay ak la mu xam ne la mu taxaw moo di tukki yi nga xam ni njiitum réewum Sénégal koy amal jëmale ko ci réew mu di tukki nemmeeku yéenekaay bi la ñu xamal moo di tey ji

ne jëmale nañ ko ci Ousmane Sonko ko tënk mu di Ousmane Sonko la ñu bëgg a ma ko xam si ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr moo nekk ci bi ba tey euh, ki xam di euh, Imam Cheikh Tidiane Ndaw ak ki xam euh, la ñu xamal moo di altine bi ñu dëgmal lañ leen fas yéene war a atte ñoom xool ana naka la fan la ñuy mujjee wàllum yoon ba tey tey bari na yëglekaay ak la mu xam ne ni jii mu di source ñu fekk fa la ñu xam ne moo di mu fi dikkee fekk na bi la mu xam ne ni jii mu di point actu yéenekaay bi lam ñu xamal moo di ñaari mandataires yi nga

am seen carte d'identité boo xam ne ñoo ko moom ba noppi bës ñëw ñu soxla li nga xam ne moo di jàllu waax ñu koy passeport na lool ci askanu Sénégal yéen kaay bi nag ci la dikk taf taxaw seetlu dañu maanaam jamono ji ak ku man di doon jàppal ni boo yoree ko maanaam bokk nga ko ak keneen fii ak amagoo jàllu waax di passeport ndax ñu baree bari dañuy bokk ak seen i këyit mu nekk njàmbat loo xam ne yéen kaay bi taxaw na ci ba tey xam si ni moo di Guirassy kaddu yi mu yëkkati moom Guirassy nag moom la ñu lu jëm ci mekk njàngale mi njàngama suufe meek mu digg mi ginnaaw kàddu yi mu yëkkati woon di xam ne ñooy euh, ne jaaru euh, ci ay épreuve na muy bare moo tax ñu koy euh, taxañ taxañee yéen kaab nag la ñu xamal moo yenn ci ay jàngalekat kaddu yooyee métti na leen ba àgg ci loolu ca tam la gis ñi grâce yi wut wax yooyu la ndax nekk na xam ne ca dëgg-dëgg wérul ma koy leeral ci biir ay yéen kaay di direct news justice ba tey beneen ëpp yëglekaay ak li moo xam ne ni mu di Yacine Fall moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum jokkalante bitim réew ak na muy doxe yéen moo di Yacine Fall na jamono ji jaaxal na lool ñi nga xam ne ñoom la séqal liggéey bi la ko waral moo ñu ko yëg mu nekk mbir yoo xam ne lënt na leen moom Yacine Fall ne ñoom la ñu séqal euh, liggéey boobu foofu ñu ko dénk ba tey Le Soleil di ko ñun dañu xamal lu jëm ci agropole ak fanay taxaw jamono ji wàllum siddu nag boo ko déggee moo di euh, ñi nga xam ne ñoo féete ci suuf ku ci mel ne Ziguinchor naka itam Kolda tamit euh, Sédhiou jamono ji liggéey ban fa doon amal ki nga xam si ni moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum euh, commerce naka noonu itam euh, ko xam si ni moo di Serigne Gueye moom bokk na ca la euh, xamal moo di liggéey boobule nekk liggéey boo xam ne lu am solo lay doon ba tey banee nopp yëglekaay ak la xam le ni ki mu di Les Échos yéen a lam ñoo xamal moo ñi nga xam ne ñoo di waa APR jamono ji taxaw na tem lenn rek la bëgg di ko sàkk mu di nañu bàyyi seen naataangoom bii ñuy wax Bah Diakhaté mi nga xam ne teg nañ ko loxo ba tey la ñu xam ne moo di jamono ji ki xam ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa tënku te kenn moo ko tënku mu di kenn rek moo ko tënk mooy Ousmane Sonko waaye nag xam naa ne dañoo fàttali ni Sonko moo Diomaye Diomaye moo Sonko noonu la ko xamle woon ca campagne waaye nag jamono ji dañoo jàpp ne daal Bassirou Diomaye Diakhar Faye péexul ci ab liggéeyam na ko Ousmane Sonko daal di bàyyi ca dëgg-dëgg mu mën a doxal ay mbiram ca na ma ko bëggee ki xam si ni moo di Abbas Fall taxoon ñu bu baax baax ci Pastef ay kàddu mi ci biir yéenekaay bi la xam ne moo di ko wax dina ne moo na ni euh, euh, moom jàpp jaar noonu la ko Abbas Fall xamle le témoin quotidien moom itam ca la mu xamle moo di diggante

yéenekaay bi taxaw na ci yoo xam ne day bàyyi ko ci payum ndox ci euh, àdduna wala ci ci réewum Sénégal noonu di ko yéenekaay bi di xamle euh, yéenekaay bi la ñu xamal moom itam moo di enquête quotidien ca la mu taxaw moo di diggante Bart ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba jamono ji gisante gun te itam mu nekk diggante boo xam ne jàpp na ni mën naa ñagas wala mu am ay jafe-jafe euh, jamono ji wala seenu nekkin xaw a euh, indi ay jafe-jafe noonu la koy yéenekaay bi di engrais euh, bi di xam le ki xam si ni moo di moom ci mu taxawaat moo di lu jëm ci jàngalekat bi nga xam ni moom lañ faat ñu koy wax euh, Alain Alain moom itam euh, moom nag euh, ginnaaw faat gi ñu ko faat yéen kaay mag ñoo ne lu bëree bëri daal dina ci dikk ak yoo xam ne am nañ ko wala bokk ginnaaw bi ñu lu ñu too defar ay enquête la ñu xam ne moo di Alain Kali mii wax dëgg yàlla faat goo xam ne dañ koo faatoon ngir bëgg jël alalam ndax lu bëree bëri ci ay alalam maa nga woon ak moom waaye nag am na ci yeneen yoo xam ne jàpp nañ daal dañoo ñëwoon rek ngir faat ko yu bare bëri nag enquête bi daal dina koy fësal mu nekk ay mbir yu leer nañ ñi ba tey ki nga xam si ni moo di Abdoulaye moom doob la ci Idriss ko tegee loxo ci lu jëm ci wàllum rawale ay na ko itam mu di cocaïne ak yu bare bari yoo xam ne ma nga ca biir yéen kaay bi nag ma ngi cay a indi ay leeral mu di ñetteelu retour de parquet boo xam ne moom Abdoulaye Seck daal dina koy amal yéen bi dam ñu dafa mel ji ma ngay wëy di gën a euh, sore maanaam seen diggante day gën a sore jamono ji yéen kaay bi moo ñu ko xamal waaye daal loo ci mën a dégg moo di njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye war naa giseeg naataangoom bii di Emmanuel Macron ñaar fukki fan ci weeru mai bi ñu dëgmal Ngagne Touré li ëpp ci yéenekaay li ñu xëy tey mu di jéego yi nga xam ni nguurug Sénégal fas yéene ko amal jëmale ko ci yoonu Sénégal ak ni muy doxee ndax jàpp nañ ni yoon wi bari na rëq-rëq askanu Sénégal yàgg ko jàmbat ne yoon wi tëddeewut njaaxaanaay ñu ñëw andi jubbanti ngir askan wi ku ci am jàmbat nga àgg ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ñu jàkkaarloo ko askanu Sénégal wax ci dëgg-dëgg naka la ñuy jubbante yoonu senegal waaw euh, sant yàlla bi nga